fois, J'espère que les cool et que tout le monde se porte hyper bien. Alors, euh, merci et re-bienvenue sur notre chaîne YouTube Kenza 221 et dans la télé avec une émission hip-hop 221. Bien sûr, l'émission qui vous permet de vivre toutes les infos et actus de vos rappeurs préférés. ba tax na nag tey dañu génn biir Mbour ñëw dëkk bu ñuy wax Thiaroye Té buñ né nee automatiquement suñu xel day dem ci ñu bëré bëré bëri parce que waa Thiaroye marqué nañ seen empreinte ci hip hop gal y a beaucoup d'artistes qui sont très et très talentueux Tay nak dañoo seesi benn groupe de rap bo xamante ne nii mu ngi wuyoo ci turu quartier Rap dañoo ñëw seet seen pour waxtaan ak ñoom ci leur projet leur pro euh, euh, li nga xamante ne moom la ñuy waajal seen carrière fu ñu commencé ba fu ñu yegg si tey donc fii lay amee sur la chaîne YouTube Kenza 221 bu leen fàtte abonné en même temps ngeen activer cloche de notification bi pour ne pas rater les prochaines vidéos Kathia Rab ma meen sama gars yi bëgg naa leen. bëgg bu baax baax Kenza. mu cool. oui mi ngi cool mi ngi cool. présenté wul gars yow yaay kan ci groupe bi Kathia Rab. dafa leer kii 16 la. moom la kay eke ay jàngul jongona tubaab bi xamu ko loolu mu yëngal eke ay aka 47 yee dafa leer. yaa dafa leer ayca bro bëgg naa la. yee doo lay yaa ma gën a xam. mu ngi cool. mu ngi cool mi ngi nice. yee free life la eke ay la rare man eke ay borom ene eke ay wisa pra. naka caaroy moo ngi neex. yee mu ngi cool mi ngi. mais caaroy tàng na de. jër jër jër moo tax yaa ma gën a xam. man de bëggoon naa toog mais comme que dafa tàng bàyyi leen ma ñibbi mbuur rek. non ñëwal fii ñëwal fii fii moo dàq buur non fii moo dàq mbuur tàng tàng moo baax quoi day tax sidit yi gën a tàng yaa ma gën a nëw waaw loolu lañu gis. ah yéen rappeurs lu tàng rek ngeen wax. waa waaw lu tàng lañ bëgg quoi parce que lu sedd boobu man ñun waxuñu ci dara quoi day tàng rek waaw. Aïcha dafa leer donc ça me énormément plaisir de venir ici yaa ngi gën a xam bi fi may caare gar en plus tamit crew de quartier rap c'est que yéen gars yi yaa ma gën a xam ñii ñoo am dese moo tax ñi ñëwuñu ñii dañoo génn noonu la fa demee yaa ma gën a xam. alors gars yi tey ngeen jël seen groupe de rap tuddee ko quartier rap mhm. est-ce que mën ngeen ñu wax quartier lan lay signifier. man bëgg naa xam. Euh, ñi suivre émission bi tamit bëgg nañ xam karcha lan lay signifier le mot rab moom bien sûr on connaît sa définition mais le mot karcha bëgg dafa leer pour ñu signifier la ko pour mu yomb maanaam ci nopp gaa yi mooy que ñun dañoo bokk même dëkkuwaay bokk même dëkkuwaay bokk même bëgg-bëgg bokk même ambition bi nga xam te nii moom lañ bëgg muy rap hip hop mu doon loo xam ne dafa nekk si ñun quoi ñu koy dund. te ñun dañ doon faral di frek ñun ñëpp. chaque jour ñuy répété di freestyle xam nga ba loolu noonu dem ba nekk suñu quartier quoi ba loolu noonu mu nekk suñu ADN boo xool dañ naa la fii zéro pitié quoi ADN bi zéro pitié quoi suuf nii quartier rap maanaam pour ñu gën ko leeral mooy ñun quartier lañ quoi quartier lañ maanaam ñun ñëpp quartier bi ñun MCC ñoo bokk même benn kër bi quoi ñoo bokk même kër bi waaw ñoo bokk même bëgg-bëgg. aussi tamit kenn ku ci nekk li nga bëgg a def da nga koy def ci nu la neexee du la yàqal dara ak sa biir quartier bi nga nekk quoi waaw quartier bi daal ñoo bokk même kër gi daal voilà. kon bu ñu déggoo quartier bi ñoo bokk même kër ñoo bokk même ambition lépp lu ñuy def ñoo koy bokk. dafa leer waaw loolu la waaw ah am na importance alors ñu gis ni nag euh, seen groupe bi comporte euh, na lu tolloog cinq personnes. voilà cinq personnes ngeen yàgg koo nekkal yàgg àndandoo di job di defandoo lépp ensemble te boo leen xoolee jamono ji Euh, boo fi fondee groupe du yàgg la plupart euh, si yenn groupe yi li koy tas mooy ay booy xaw nga rey sa saawaay ci ci ci bi sa couple moo daax wala affaire de gel yéen ma gën a xam nan ngeen def ba groupe bi durée ni am durée bu yàgg bi. non c'est lépp rek gëm-gëm la ak dëggu te ñun dañoo dëgg suñu biir ñun lépp lu ñuy def rek dañ koy defandoo ensemble. parce que ñu ne nen la ñu ñëw bëggee hip hop en plus nekk quartier bi di ko dundal yow boo boo nee caaree rek nga xam ne carrément hip hop la ñun hip rek la ñu di booba léegi kon booba léegi ñu ngi koy teewal kon ñun amul dara loo xam ne da koy dindi si loo xam yu négatif la ñun maanaam ñoo bokk gëm-gëm bi kon ñun chaque jour dañ koy teewal fi ñu dem ñooy demandoo ñooy defandoo lépp maanaam ci kaw gàttal noonu la fa demee exactement parce que je me dis que ni ay nit bu ñuy dañuy ànd ci fulla ànd ci fayda ak gëm-gëm ànd ak seen ambition terewul ni tamit euh, kenn koo xamante lu bul ko ko rusa wax wax parce que loolu mooy groupe est-ce que dooleel ñu dooleel freestyle en attendant ñu continuer émission. yeah noonu la fa demee ok. yaa soxlawuma jàmm encore yaag sooy cosin fulka pourtant maa ngi si biir surface périmètre volcan ma gën a mën a risqué risqué ma pour succès saaniwuma picte maa nga peel benn laafi duma per niveau bu di gën a yéeg ma gën a cher ànd ak jeeg bu mool bix te daw ma géej suma amul ennemi bi siisiwul si lii kon ma teg tànk yow lii dafa neex ànd xool bu feex ma fecci li kon li fi dees amul dara lu may maye zéro pitié wa sëp free life ek el rarma zéro pitié baa waaw voilà <laughs> man moom ku ma yërëm laa bëgg. yeah ok. ay yow respecté caabi jox ma kattan hip hop may ma doole bu dul jeex tàggat xel doom musuma na mu sikkim bu dee maa ngi koy waat naan sa deret ak sa yuur bënn sa gat fii toog bokk ci mafia caabi ADN bi la tippo jox ma ma tiktok su may rap neel mic toog maa seen king kong laa sa gel ak kondom jaaxaan sa la lu meer kuy fëgg neel konkong ay yow kàcc bi rap la raate la fépp li la krak la sa saap la ñoo lay sànk di sànk la suñu battement sankra un la double zéro ñoo lay fokk ba cent beneen xar kanam moo ngi teew lalal ba yeah bang bang. jee what's up fii mu ngi baax. ay <laughs> ayca on continue euh, gis naa ni gis ñu gis ni nag yéen a ngi ci benn label bu ñu naan Bong Dong Record di euh, saluer de passage ki nga xamante ne moo di producteur bi Cortex vraiment nit ku baax la est-ce que mën ngeen ñu wax ban link ngeen am ak euh, label boobu noonu da ngeen faa signé ou waa label bi mun naa ne ñun ñu ne ñoom benn lañ quoi. Mm-hmm. waa du nuy waale Cortex. ak grand saxaaba grand laay mu jotali ko yeneen bërë yeneen grand yu fa nekk yëpp quoi. waaw signé wuñ fa maanaam en tant que artiste ak artiste dañ fa signé pour projet quoi projet lañ signé te projet lañu lañ la la ñuy defante ñoom waa si projet bi la ñuy dox quoi ci lool la nekk quoi mais nekku dañ fa pour à ah, quelques yenn bagages yéen parce que dañoo nekk suñu projet ak ñoom projet bi la ñuy signé quoi loolu si si loolu la nekk quoi. ay ca loolu leer na ci projet bi ngeen nekk tey ñu nekk dëkk bi nga xamante ne ni moo di caaroy comme ni ma ko waxee sànq y'a beaucoup d'artistes rappeurs qui sont très talentueux et waa Thiaroye marqué nañ seen empreinte ci hip hop galsen euh, tey nan ngeen gisee hip hop galsen en globalisant jamono ju ñu toll nii euh, ci côté positif ak tamit ci côté négatif. yeah boo xoolee maanaam ci kaw gàttal gars ñu ngi def seen job ah, ñu ngi def seen job ku nekk yaa fu nga ko mënee yaa ngi defee. waaw noonu la fa demee mais saa nii maanaam foofu sax sama wax du fa bëri parce que dafa am loo xamante ne gars yi ñoo nga fay def te maanaam neexuñu à pour cent tamit noonu la fa demee am na yoo xam ne maanaam respect quoi. sa biir wax ne am na loo xam ne ñu ngi koy def te neexu leen à cent pour cent léegi loolu lan la. no c'est xam rek am na yoo xam ne doo mën a expliquer quoi tamit ñi tuddee rapport te nekkuñu ay rapport. comme comme ñan comme ñan doo ñu tojol bi ñu mën a xam. non non respect quoi respect mais après lépp dina leer quoi après nañu ko rek lépp dina leer. Ah. ok ayca bro yow loo ci wax ci côté positif ak tamit euh, côté négatif lan la ñu war a yokk wala lan la ñu war a wàññi selon toi. waaw man li ma war a wax mooy que mooy ñi nga xamante nii ay chroniqueur lan ak ñi nga xamante ne ay publiqueur lan maam ñoo ngi noonu nañ nañ nañ xool booy yi nga xamante ni dañoo mën li ñuy def quoi. pas ñu fixé ko ci benn ci benn âge bi nii rek ci benn passe bi nii quoi parce que lu may gis gars yi lu ñuy fixé yëpp. ak gars yi ñuy commentaire yëpp maanaam dañ koy jël ci ci comme benn jalu artistes yi rek ñu yem ci ñooñu kase quoi te am na ñeneen ñi nga xam te nii booy nekk suuf dañoo mën a rap dañoo mën hip hop bëgg hip hop mais ñooñu du leen xool quoi yenn booy rek man moom laa seetlu moom la ñuy jël di leen wan un devant quoi te affaire bi du yoon dañ ko war a gën a yaatal xam nga di ko partager ak yeneen gars yëpp gars yi kenn ku ci nekk mën cee gis sa bopp quoi man pour fi mu ne nii Galsen gis avancement yi quoi parce que boo les ay jamono ci ginnaaw métti woon trop mais les gens nii nii benn boy nga gis mu fël xam nga commencé gis réewam quoi ci benn instant bi nii waaw mi ngi cool la exactement auparavant c'était trop difficile mais les ak euh, ak technologie bi ak yi nga xamante ne nii euh, am nañ moyens yi donc c'est bien normal que ñu gën a job gën a jàppalante suñu biir vraiment message bu am solo alors ma gis na nag yéen a ngi euh, ci benn style de rap bu ñuy wax xat koor mooy rab bu dëgër bi bu dëgër këŋ boo xam ne boo defee ni danaan tas <laughs> voilà bu bu dëgër bi alors euh, noo leen gisee euh, euh, polémique bi fi am temps yi ci biir game bi rab bu bi fayul rab bu nooy bi mooy fay affaire yooyu noonu non moom xam nga rek Galsen sànq lu mu la waxee ku nekk yaa ngi def sa jëf ak fënka mëni uh-huh. mais bi quartier bi si jëm boppam ñun hip hop la ñuy def boom bag show la ñuy def ñun a chaque fois mais ñun ku nekk en parlant de ku nekk maanaam sa solo yaa ngi joob nu mu la neexee moom tamit waaw ñu tënkuñu rek foofu foofu kase kase ñun noonu la ñuy joobee quoi yaa am gën a xam. waaw lu may wax foofu mooy que comme ni ko firi laay waxee rek maanaam quartier bi boo nekk ci biir kër gi maanaam kilifa kër gi dafa am sart bu mu lay wax moom ngay doxee quoi sart boobu nag moom ngay wéyal mais boo génnee ci mbedd bi. foofu noonu da nga fa am sa liberté bopp quoi lu la neex mën nga ko def ci biir mbedd bi mais boo ñëwee ci biir kër gi moom jàppal ni sart yu ñu tëral ci biir kër gi sart yu noonu moom ngay doxal te carcera bi moom li ma la doon wax léegi carcera bi noonu lay doxee quoi maanaam par sart la boo nekk ci biir kër gi dafa am sart règlement yi nga xam moom ngay dox yi ngay respecté mais boo génnee moom yaa moom sa bopp quoi boobu sa liberté totale la parce que loolu loolu neex moom moom ngay def quoi waaw loolu la quoi. alors noonu la demee gars yi ba tey ci seen émission hip hop 221 on est là ici à Tiaroy, avec le groupe Quartier Rap alors euh, récemment ñu gis ngeen euh, def benn publication benn affiche boo xamante ne ni c'est écrit Benen xar kanam euh, projet lan la album EP wala mixtape expliquez leen. yeah xaar ko léegi léegi mu ñëw benn mixef la quoi boobu yàgg nañ koo togg mais xam nga rek lu jot yomb quoi ba gars yi gis ñu nga xam ne carrément ñu ngi job ñu ngi si beneen xar kanam gars yi gis ñu ñu ngi si ay yooyu noonu ba waa ba waa Mbong Dong léegi ñëw produit ñu quoi si si benn mixef nii moo tax gars yi ku ko déglu da nga naan album album carrément album la mais ñun mixef la mixef la mais projet bi ku ko déglu nga xam ne carrément ki jégg na sax mixef quoi. noonu la fa demee yaa gën a xam. ci sa wax ngeen ne projet bi yàgg ngeen ko togg donc ce qui veut dire que ni depuis lors yéen a ngi ciy liggéey est-ce que mën ngeen ñu kon euh, ñaata at wala ñaata mois ngeen ci nekk di jóg. non na yàgg na mu naan ay année kay ay année ay année yàgg na trop sax moo taxit isaan lu yàgg moom nga nga koy liggéey for force day ñor te ku ko déglu for force di nga xam ne carrément ñii foowuñu caaxaanuñu dañuy liggéey ba ñun dañuy liggéey de ku liggéeyul dañuy ku liggéey waaw yow yaa ma gën a xam respect. waa noonu la job mooy fay alors est-ce que mën nga ñu wax projet bi ñaata sound ñooy nekk ci biir. waaw projet bi seize titres la quoi. seize titres. seize waaw seize. maa soo xam kon lu tax gars yi naan leen album la. te sarax la rek la sarax la rek sarax la rek. sarax am na yeneen yi nga xam te ne nii bëggoon nañ génn lépp seize sax. mais gars yi ñoom ñooñu xam nga rek ñooñu ne yéen tamit bu leen bu këpp ndab li tamit moo loolu def bàyyi leen gars yi seize bi rek ñu jéem ko meññee ah. mais dañuy xool bu ñu atténuer seize yi. ñu ñu bàyyi leen ñi mais buñ ko moom dal leen fay fekkaat mooy loolu quoi parce que am na leneen loo xam te ni mi ngi toog di xaaraat fi mu ne nii voilà. donc ñoo ngi koy xaax dans sous peu de temps est ce que jot ngeen invité ay artistes yoo xamante ne ni dafa ngeen ñoom featuring ci biir projet bi. waaw kenn kasa la quoi benn sista suñ benn sista la mi ngi nekk Mbong Dong moom tamit ñu ngi koy nuyu passage moom kasa moo ci bokk quoi waaw. moom fan la dëkk fii nii Thiaroye. non non dëkkul Thiaroye mi ngi passé mi ngi mi ngi studio ba Mbong

mën nañoo def fii mën nañoo liggéey lépp quoi parce que membre yi cinq lan waaw duñ quatre quoi cinq lan ñu gis ni ñun ñun ñun képp rek mën nañ ko liggéey quoi mais li ngay gën di dem di gën di liggéey affaire yi di gën di yaatu quoi nga ciy gën a gis waa porte yi gën a ubbeeku parce que benn jour la la la la fa kii demoon kalaamu la ak ak kii bii wan ànd doon eggali projet bi fekk man jour am ñëwum woon après si diggante boobu noonu lañ gis soxna si xam nga defante moom link ci si saa si jour bi ci lañ egg job tamit son bi quoi moom tamit mu mën a bokk ci kii bi ci projet bi waaw. projet bi bu génnee da ngeen koy jaay wala da ngeen koy def gratuit. non kooku nee la liggéey la liggéey la kooku jaay la yaa ma gën a xam. waaw gars yi nañ ko xaar rek mani la de ndax dañ ko yàgg job quoi yaa ma gën a xam parce que nee nañ mooy fay a fay yaa ma gën a xam. noonu la fa demee man mi j'ai l'habitude de le dire job mooy fay. si noonu la fa demee de parce que ku jobul tamit doo fayeeku quoi tamit gars loolu la ñu wax mais am xam ne jëwuñu mais tamit. yàlla moo leen tijjil quoi tamit dañuy nangu quoi yaa ma gën a xam noonu la fa demee. mais est-ce que projet bi bu génnee dina am lu koy accompagner est-ce que da ngeen tëgg concert fii nii à Thiaroye wala ngeen dem ci yeneen localité tamit tëgg fa concert. ah oui ñun pare nañ pour dem fépp ah. pare dem fépp parce que membre yi kenn ku ci nekk am nga sa cosaan quoi bëgg nañ ko yóbbu ba sa dëkk ba sa dëkk man ku ci mel ni man Kaolack waaw ku ci mel ni Kaolack nangaan Ndorong PMD moom it Kaolack la dëkk tamit bëgg na ko yóbbu tamit Kaolack Kalamula Casamance xam nga bi 1 under Fouta Free Life moom it Fouta waaw kon kon Kenza Mbour waaw Kenza Mbour yaa am gën a nëw <laughs> kon affaire yi bëgg nañ bëgg nañ mu gën a yaatu te te duñu yem foofu noonu bëgg na ñëw dem tamit esat esat Géejawaay Amadou Bari Amadou Bari waaw ji hip ba tamit waaw bëgg nañ fa def ngan di concert bu mag a mag a mag mag di toj nopp gars yi nii kay laa lay tegal nii voilà. ayca incha allah yooyu yëpp mën na nekk euh, est-ce que mënoon doo ñu wax date sortie ko kii bi projet bi. waa instant bi nag mënaguñ ko wax jamono jii nii. parce que dañuy def bientôt rek incha allah parce que dañoo nekk ci quelques réglages yoo nga xamante ne nii des na pour ñu wax ko quoi mais xëy na yàggatul incha allah dinañ génne affiche bi wax date bi yëpp quoi. waaw. donc daal pour l'instant mën euh, mën nañ jàpp ni projet bi léegi mu génn yàggatul dara. non yàggatul yàggatul na ko gars yi xaar rek yàggatul bientôt rek. waaw ah, yaa a quelques moments si alors ngeen ay vous êtes très engagé nekk rappeurs yoo xamante dañuy population et loolu la ñuy la voix du peuple ngay fi nga dund fi euh, nga dëkk nga gis nit ñi di ñaxtu nga et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire euh, ñu Sénégal nag boo leen Fanny fan yi rey gi pareil ku sa doom génn sax tànk ñibbisiwul sa xel du dal kenn nangootul guddee àll ndax insécurité bi nekk ci dëkk bi léegi loolu yéen étant des rappeurs étant euh, ñoo xam ne ñooy la voix du peuple yan selon vous yan précaution la ñu war a jël ba loolu jeex fi tàkk wala ban message ngeen di lancé euh, monsieur le président de la république du Sénégal Macky Sall pour ñu jël ci suñu matuwaay d'accord ngeen ku rey ñu rey la ñu signé fi loolu une bonne fois pour toutes nan ngeen gisee loolu. waaw man d' naa man solo man c'est d' accord naa ko rey ñu rey la quoi parce que rey yi dafa commencé bëri doole dafa ëpp quoi dafa ëpp c'est trop parce que imaginer nit deful waxul nga rey ko ci maa de foro quoi après benn jour lañ koy wax ba deuxième jour bi ñu fàtte ko quoi après tëj nañ ko ci xëy nañ benn jamono bàyyi nañ waa ji mi ngi doxi soxlaam xam nga loolu tamit dafa yomb tamit te dafa fort yàlla bakkan la gën a fonk xam nga kon na yi. bàyyi affaire agression yi ngi def parce que xaalis jaru ko quoi xaalis da nga koy yor léegi léegi nii mais après da dee bàyyi ko fi waaw président tamit moom ñu ngi koy lancé message tamit na gën a xoolaat Sénégal xam nga gën xool ni muy réglé business yi quoi parce que affaire yi neexul ci xool metti na trop doo jur sa doom yar ko ba mu doon waxambaane xam nga wala ba mu doon soxna su mat sëkk xam nga ñu kilal la ko ci benn jour nii xam nga loo tamit neexul tamit quoi waaw ñu ngi koy ñaawlu vraiment vraiment ñu ko waxee foofu rek. maanaam rey gi bari na ku nekk maanaam ak fi ngay xalaatee tamit te di jaale wala tamit waa Tiwaawan tamit hôpital maanaam ñoo ñu fa lakk quoi liir yu fa lakk ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax baax yal na leen yàlla yal na leen yàlla yërëm tamit surtout lool rey gi bari na tamit insécurité bii bari na genre yu demee noonu président maanaam gis na côté yi nag faay faay négatif moo tamit na si na si jël ki ay matuwaayam quoi tamit bu mu xaar parce que rumeur yi bari na yëpp foo dugg moom la ñuy wax moom la waax moom tamit dala ci xaar tamit quoi tamit

waxoon du yàgg man moom. bi maanaam lu ci métti woon mën nañ na jeex na. Mhm. lu ci métti woon yëpp jeex na. Mhm. wàllum enregistrement son beeg yooyu yëpp jeex na quoi mhm. maanaam joxe date bi rek moo ki des quoi te date bi si ci gars yi lay dépendre waa Mbong Dong xam nga kon dafa des ay quelques réglages te loolu yàggatul bientôt lay doon incha allah di bëgg nag waa Mbong Dong bu baax parce que ñoom ñoo def produit bi quoi ñoom ñoo si jàpp. parce que ñoom romb nañ ay gaale yu bëri romb nañ ay quartier ñëw ba biir caaro yi xam nga te ñun caaro yi am nañ fi suñuy garant yi nga xamante ne nii mën nañoo jàppale defal ñu produit bi génneel ñu mais defuñu ko quoi kon waa Mbong-Dong bu ñu defee loolu noonu tamit yoon la ñu ñu encouragé leen félicité leen si loolu noonu kam te loolu tamit dafa doon lu rafet quoi waa ñu ngi leen di delloo jukkal baax a baax di di wax respect si ñoom quoi baax a baax fo royéen yooyu yee noonu la fa demee rek yéen ma gën a xam yee waa Mong Dog ñu ngi leen di ñu ngi leen di ay ñoom Cortex ñoom saxaaba genre yeneen yëpp ah di siyaar di daa maanaam ngeen xaar bientôt rek projet bi léegi mu génn yéen ma gën a xam di bëgg yeneen gars yëpp yaa ma gën a sama mafia waa mafia tranquille sama waa garage mooy fi may liggéey mooy loolu yaa ma gën a xam di bëggee wàlla gars yeneen gars yi ñëw li ñu waroon ñëw bokk ñoom bi waan ñoom kalaamu tamit daa demoon daa am benn problème rek kii xaw am benn quelque souci rek yaa na ko yàlla fajal ajoom boobu noonu quoi yaa ma gën a xam sama gars yi respect big up si yéen. yéen yéen yéen xam ngeen remercié woo leen sama caméraman bi. waaw waaw waaw dinaa mu monté vidéo bi <laughs> bu si laa si moom laa bëggoon ñëw ci moom laa bëggoon ñëw ci moom laa bëggoon ñëw xam nga moom borom baax la ñu ngi koy ziar bu baax. di ko wax ni xam nga sant na la gërëm na la sa liggéey rafet na quoi parce que ñu ngi gis affaire yi si waa ci yoon bi ñu ngi koy gis ci net bi quoi ñu ngi gis sa liggéey ak yow it Kenza yow it xam nga ku baax nga yow it ju baax nga wax dëgg yàlla ñu ngi doon déggante nice quoi heure bu ma la wooyee nga wuyu ma te aussi tamit loolu bu neexoon tamit doo ko def quoi kon en tout cas daal ñu ngi leen di féliciter waa 221 forever yeah bang bang di wax nag xoolal yi lu ñuy bañ a dégg nag di ngeen ko dégg maanaam original bi original bi mooy original bi OG bi mooy ñun ko papa rappeur yi waa Kaccarab la gars yi ku ci am nag looy wax nag ñu ngi lay déglu ah mais original bi nag laa la wax Kaccarab la. <laughs> comme wax rek di bi ak Kenza 221 ah, xam. alors gars yi li lañ leen dans votre émission hip hop 221 ñu ngi ñëwoon fi nga xamanteni modi moo di le groupe Quartier Rap donc n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de partager mais aussi de liker Madino Sano Junior à la réalisation de cette vidéo love you all guys à la prochaine am leen let's go.